asalaamaaleykum waa Ziguinchor dama am mbégte bu rëy ndax lii caravane improvisée la du meeting bu yaakaaroon waaye dañ ne woon rek dañuy romb nuyu nit ñi gërëm leen it ci jàppale bi nga xam ne ñu ngi koy jàppale bi may waaja wax yéegal nañ ko benn xale bu ñëw toog fii yow noo tudd Ibrahima da ngay jàng daara eh, loo ma mën a tari tari dara ma dégg waxal naka sóoratu waa lii léegi dañ ma ne lii mandarga la ci Macky Sall ak ndax dafa newon jël na ay décret ta dootul bayyi xalé yi ñuy taxawalu ci mbedd mi waye fo dem ci Sénégal xalé yaa ngi ci mbedd mi té li ci gën metti moy mooy ñaare soo leen ci lax li taxoon ñu wara nekk ci mbedd mi moy jang bi ñu wara jang ci diine wala ci alcorane boo moytul njàng mi soriwut loolu day wane rek gouvernance Macky Sall mooy lu mu mës a digeeg sénégalais yi rek teg na ko fële def contraire bi waaye li ci gën a garaaw nag su doon dafa ñàkk mën dong su doon dafa cuune dong su doon dafa ñàkk gis-gis dong ñu ne loolu nattu la boo xam ne yàlla moo ñu ko teg waaye suñ ci boole nag njublang ba nga xam ne lépp luy alalu réew mi ñu dénkoon leen ko pour ñu koy saytu ñoom ñu koy luubal loolu dafay doy waar ci jamono jooju réew mi ñëpp a ngi souffrir kon fii ñu taxaw tey war a continuer bi fii dafa représenter senegal ndax xeet yëpp a ngi fi diine yëpp a ngi fi ethnie yëpp a ngi fi kon fi marché Boucotte bii dafa représenter Sénégal nag mooy li bëgg Sénégal waye bëgguñu Sénégal lu yé ay fitna yeen wa Casamance dégg ngeen ci jamono yi passé saga nañ leen leen ay hommes politiques ñoko def Traitez-les de rebelle Traitez-les de sénégalomancé Ta lolu rek justice jël dossier bu yag ndax leum nga ñew taxaw vous n'avez pas répondu à ces provocations parce que xam ngeen ni ñi koy def sen xalaat mo gatt Vous représentez Waye wuñu Sénégal Sénégal ndax cantine boo fi jël ñetti cantine yoo fi jël ñaar ñi ku dëkk Kaolack wala Touba wala Tiwaawoon wala feneen moo ko moom te ñu ngi dëkk fii ak nit ñi ci jàmm di fi liggéey di fi am seen wërsëg di jëflanteeg nit ñi Sénégal boobu lañu bëgg bëgguñu Sénégalu xiroog ngaayo bëgguñu Sénégalu fitna bëgguñu Sénégalu ostracisme wala apartheid vive le Sénégal vive tous les sénégalais te li ñu yàlla booleek ñoom moom ko ñun ñëpp nag li ñu yàlla boole ñu ko ñun ñëpp muy Sénégal responsable la kenn ku nekk ci ñun mu saytu ko kenn ku nekk ci ñun da am responsabilité bu kenn toogati naan li xew ci réew mi sama yoon newu ci bu kenn toogati li ñuy wax xaw ci dara kon duma ci wax. fu ñu yëkkatee kàddu ne xaalisu réew mi moo xam ci pétrole la jaar wala ci gaz wala ci zircon bi nekk ñafrang wala ci géej gi nga xam ne tey mënatuñu am jën wala ci leneen ak leneen ci mbay mi fu ñu waxati ne luubal am na ci 14 millions de sénégalais yëpp nañ ko jël def ko seen mbiru bopp parce que lii ñuy seetaan nag ñu koy def ñoom mën a sàcc ay milliards denc ko moo tax tey ndóol gi am ci réew mi ba fii jeune boo wax mu ne la Jakarta Jakarta rek la ñu am amuñu leneen kon suñu combat la ñun ñëpp du combat Ousmane Sonko ku jàppar jàpp ni combat Ousmane Sonko la jum nga suñu combat la ñun ñëpp te bis bu ñu gañee combat bu Sénégal naat ñu defar ko ba mu baax parce que réew yu baax ñëpp foo dem dafa fekk ña jiite réew mi alalu réew ma ñu ngi koy delloo si biir réew mi waa réew mi di ko jëriñoo gouvernance mooy le premier combat à gagner te nun nag duñu dañ ci fu ñu gisee sàcc ne sàcc a ngi nii loolu kenn mënuñu cee dindi kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant dañoo war a continuer caravane bi war a def conférence de presse bu ci kaname lépp xajul fii waaye ñuy gërëm waa marché bi yëpp di gërëm waa Bukot di gërëm waa Ziguinchor di ñaan yàlla di yokk fi jàmm asalaamualeykum wa rahmatullah